koy soppi comme mu wuute ñu ko doon defee dafa bokkoon ci fànn nag njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy toog di jàngale nga xam ne la muy wax ak wax yu dafa bàyyi ko ci boroomam subhanahu wa taala su ko defee saxaaba yi di ko déglu muy njàngale la nga xam ne loolu laa sukk ni wér na du ay waxi boppam waaye waxi sunu boroom beneen bi yonent yàlla bi saa sallam mooy laaj saxaaba yi atadruuna ma nàngam ndax xam ngeen nàngam su ko defee ña xam daal di toon ku xamul daal ni allahu wa rasuluhu aalam yàlla ak yonent bi ñoo xam am na beneen boo xamante ni saxaaba yi ñoo doon laaj yonent yàlla bi di tontu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon xeetu laaj ak tontu dafa bokk ci buntu jàng dama seetlu ni li ëpp ci benn benn yi léeg-léeg dañuy faral di ñëw di laaj ay laaj benn jot bariwut boo xam ni mënees na képp ku laaj ñu di ko ko tontul ñaareel bi moom mooy léeg-léeg nit mën naa ñëw laaj ma laaj ma tontu ko waaye man dama koy tontu ba nëpp ma yëg ni laaj bi kat am na solo solo goo xam ni ndekete kenn du kenn rek ko waroon a dégg du caagee dañuy jël tontu bi rek wax ko kenn ndax léeg-léeg ni dana laaj ab laaj ma yëg man laaj bi solo si mu am mu wóor ma ni lii kat su fekkoon ci mbooloo lañ ko laajee woon amaana yow mën nga cee jëriñuwaale kon buntu laaj ñu xam ni bokk na ci méthode jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nag daf di ñaari façon am na koo xam ne lii muy laaj moom da koo xamul mu bëgg koo xam kooka laajam ba laaj bu baax la am na koo xam ne laaj bii moom xam na ko sax gaa waaye dafa bëggoon nit ñi jàngaale ci loolu dana am saxaaba yi léeg nañ dikk laaj ab laaj boo xam ñoom ñu laaj sax xam nañ laaj bi waaye nag amaan na ñoom man buñ ko laajut keneen mën na ko bañ a laaj su ko defee ñoom dañ koy laaj ngir keneen daal di ciy jariñu waaye am na laaj boo xamante ni nit ki wax dëgg yàlla li muy laaj amul solo wala boog moom xam na ko wala boog laaj la boo xamante ni tontu dañ ko tontuwaat ko yooye moom daanaka bariwut njariñ kon daal ci ñett yii mën naa ni ci lañ mën a tënk ah su ko defee su fekkee am na ay laaj yoo xam ne yu jëm la ci suñu wàllu diina ñu mën cee jariñu bu duggee ci benn ca ñaari yële loolu lu baax la waaye bu ko xësee ba génn rek daanaka njariñ ba dootul amati loolu tax booy jàng xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ay yoon du benn du ñaar du ñett saxaaba yi dañuy laaj ay laaj yonente yàlla bi tontu sallallahu alayhi wa sallam ma joxe ci benn misaal rek ngir bàyyi leen benn kaw kaw mas naa ñëw fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog mu ni ko yeey yow yaay Muhammad doomi Abdallah ak Amina mu ni ko waaw mu ni ko yow yaa wax ni yàlla moo la yónnee nga ni ko waaw yaa digle julli juróom mu ni ko waaw mu ni ko allahu amaraka bi hada ndax yàlla moo la digal li ngay wax yow kon gis nga façon laajin woowu malgré que kilifa kenn du ko laajee noonu waaye yonent bi moom xam na kaw kaw yi daal di mu ni ko waaw yàlla ma ko digal kay mu ni ko dégg naa yaay digle woor mu ni ko waaw mu ni ko allahu amaraka bi hada ndax yàlla moo la digal loolu nga ni maanaam mi ngi ne ni ku ko bëgg a jaxaseeg yàlla comme ci suñu làkk wala mu ne ko waaw ba mu ko laajee ba yeggal mu ne ko kon day maa ngi lay seedaloo ni man day tuub naa dugg ci lislaam gëm naa yàlla gëm ab yonenteem fas yéene naa def li nga wax kon genre yu mel noonu bari na lu mu doon am yonente bi di tontu saxaaba yi ci seen laaj yu mel noonu kon moo xam lu jëm ci wàllu fiq la wala lu jëm ci wàllu pas-pas la su fekkee lu ñu xam la ah ñu tontu ko bu ñu ko xamul ñu tawkiil ko ca ña nga xam ni ay boromi xam-xam lañ ñu tontu ñu wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi bàyyi jàmbur kaay waa kaay ñëw indi ko beneen bi ma fàttee maa ngi fàtte fàtte beneen bi ci topp moom mooy maanaam nit ki léeg-léeg ab masala mën na kaa gaar mu am kersa bañ a laaj loolu daa bokk ci tooke yu mag yi yi seytaane mbaar yi seytaane jëfandikoo eh kay jël ci jox dafa bokk ci mbaal yi nga xam ne seytaane daf koy teqatalee nit ki mooy mu am masalam diine mu am kersa ci laaj waaye da ngaa baax da ngaa ragal yàlla da ngaa góorgóorlu saxaaba yi muhaajiruun yi ak muhaajiraat yi ñoo la gën a baax gën laa ragal yàlla am na laaj yoo xamante ni sax ci ñun xam nga sénégalais moom lu kersaw daa yomb ci moom xeetu xeetu xeetu xeetu Sénégal ni ñu koy yeree yi muy def kersa yi ëpp xeetu naar ak yooyu duñ ko faral def kersa ndax moom léeg-léeg ñoom am na yoo xamante ne sa dëgg la kersaw na waaye dañuy jaar ci digg ba mu nekk laaj yoo xamante ni day xaw di kersaw waaye yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ba ko ji- jigéen ja laajee lam ko laaj ba pare ca la yent Aïcha mu ni jigéen ñii day ñoo baax ñu ne ko jëm jigéen ñen jigéen mu ni waa Ansaar ñoom day li leen tax a baax bokk na ci mooy kersawu terewu leen a xam seen diine masala mi nga xam dafa laal ci sama julli wala sama jaamu yàlla wala sama laab wala sama woor wala sama nangam maam kersa bañ ko koo laaj ma jaamu yàlla aw jaamiwun woo xamante ni dëppoowul ak na ko yent bi jàngalee damay am ñaari ñaari ñaari ñaari bàkkaar ñaari jiw bi bàkkaar bu njëkk muy sunu borom dañoo boo xamut laajal fas alu ahla dikri in kuntum laa taalamuun beneen bi borom bi subhanahu wa taala daf laa digal nga jaamu yàlla waaye mu tege ci lu wér qul hadihi sabili ad'u ila allahi waaye ala basiratin dama koy teg ci lu leer maanaam lu ma xam waaye duma ko teg ci ay foog naag dégg naag yaakaar naa buntu boobu yi bàyyi ko xel bokk na ci ay solo wallahu a'lam
waaleykum salaam wa rahmatullah
ci wàllu
aywa
damay damay damay corriger laaj yi nii njëkk benn waaye dama koy déglu ci rajo muy tontu ay laaj mu wax wax ju am solo am ko ne su fekkee da ngaa njaaloo bu ne ko déedéet man kay njaaloo bu da ngaa su fekkee benn waaye bu njaaloo loolu nag waxin la maanaam ci wolof ci wolof da ngay dégg ko ni su fekkee da ngaa nangam maanaam mu ni ko su fekkee da ngaa njaaloo def mu ni ko déet man kay njaaloo ma da nga naan benn waay bu def nangam kon loolu waxin wolof la jubbantinu wolof la ala kulli xaal mbir yi nga xamante ni moom mooy génn ci ku jigéen tontu ci ci li nga laajee du yomb ndax su doon lenn la dañ koy joxub àtte mu jeex waaye comme yi génn daa bari léegi day aajowoo xam liy génn lan la ndax xayd la ndax nifaas la ndax perte blanche la ndax lii la ndax laa la yooyu yëpp am na ci benn bu ci nekk ab àtteem su fekkee lay génn xayda la laa shakka loolu moom julli gi day yàqu su fekkee nifaas lay julli gi day yàqu nit ki ne neen julli day julli sax du ko fekk defarawaat defaraat du ko ci fekk xayda mooy gis baax la maa fen xanaa dégg la su fekkee gis baax la wala jëri gisin la moom julli gi yàqu noonu te amul defaru juwaat parce que ci gis xayda dootul jullee su fekkee lay génn istixaada la istixaada mooy loo xam ne comme gis baax moom la war a fi tuddee njorngel comme gis baax daanaka amul différence différence mooy yu sew saan yi ñu koy xàmmee rek waaye li liy génn fee mooy génn fii loola àtte ba muy yore mooy àtte salasul bawli nit ki am siital waaw am na koo xam bu tuuree ndox ba noppi même bu paree day gis saw bi day génn ci moom loolu feebar la yooyu xeeti feebar kum dal nag mook istixaada di deretu mbërëb bu génn lu bari ëpp aada bi mu amoon ñu bokk àtte nit ki dañ koy wax ni ko saa bu julli jotee rek defarul nga jàpp jeex na même boo defaree ba noppi nga jàpp bu continuer di génn sa yoon nekk parce que feebar la ànd ak nag dañ naan la faju génn su fekkente ni liy génn perte blanche la su fekkee nit ki defaroon na ba noppi mu jàpp ba pare mu sentir ni ma ngay génn nit loolu tamit yàqu julli gi jërul defaroon day continuer su fekkee leneen la nag ñu xam leneen loola lu mu doon doo ko joxe àtte maanaam daal ci gàttal li ñu bëgg a wax mooy ñay génn faw ñu xam lay génn lu mu doon ñu doo koy joxe àtte ndax yëpp duñ bokk su doon siitalu saw la te fekk nit ki def na la ko war ba noppi même bu fekkee mi ngi julli sentir ni mi ngi génn ndax loola feebar la donte sobe la kenn du ko wax dara du yàqu julli gi wallahu taala aalam
boo leen mënee wax ci kaw ñu dégg laaj.
waaw fajee ko beneen soxla su fekkee daf laa jox ngir nga def nangam loola tekkiwul ni yaa ko moom su fekkoon da laa jox soxla ni la fajee ko soxla sàngam yow nga gis ni soxla sàngam bii moo gën a nekk farata sax day dafa jaadu nga wax ko ko ba pare rawatina nag ba nga xamante ni masala mii nga laaj ak boobu bokkuñu ndax bii nga laaj mooy daf laa jox pour nga faju faju gi moom la war comme moom la war nag def na la ko war yow boo ko dugalee feneen def nga lu warul ndax su fekkoon te ni feebar bi daa gën a méttiwaat bu doon ordonnance ab junni ñu daal di bind léegi bu ñaari junni su boobaa coono boobu yaa ko ko teg kon nit ki su fekkee dañ koo jox xaalis borom këram da ko ko jox ngir defal nangam nangam joojee la war def su fekkee nangam joojee naru koo def na ko wax ni ko man kat damaa nar a def lii ndax gis naa ne nangama su fekkee convert nag kër na ko ca loola alhamdulillah bu fekkente ni tamit tere na ko su boobaa lam ko def loolu la war a def fii nekkul mooy yàlla bi maanaam borom kër lim la wax def ko loolu nga war a def su fekkee dug mooy yàlla soo naree def leneen nag am nga sañ-sañ mu jox la ñaari junni ne la jëndal tiisi sàngam nga jël junni ba jëndee ko wax pour bëgg loolu baax na laa sax loolu moom bu fekkee nit ki def na ko borom këram yaakaar man dana ko bañ su fekkee dama laa jox pour nga ndékki ndékkee téeméer nga jël trois cent yi deux cent yi nga jël place que loolu ku baax lu baax la waaye damaa feebar war a faju nag moom ma fajewuma ko ma dem dugal ko feneen li ëpp ci góor ñi boo leen ko defee ñu mel te su boobaa maanaam moom mooy am dé kon su ko nit ki naree def mën naa nekk waaye ci kaw bu ci amee ndigal ba noonu wallahu taala bu dul loolu day am bàkkaar ah dégguma dégguma li nga war a wax waaw déedéet ki daan gis juróom-ñaar li ëpp baa xam day yegg juróom-ñaar mbaabu di ko jege waaye su yemee ci ñaar ñaar gàtt na lool su boobaa la ko war mooy mu xool ndax ñaar yi ba mu paree set la gis wala déet am na lu ñuy tuddee xasatul bayda loolu la olof yi tuddee ñooy genre trait yu weex lu ñu génn loola day wane ni set am na wa illa nit ki gis al ay jufuuf mooy wow wow maanaam gisut la- dara lu génn ci ci moom téye bi jëfandikoo loolu day wane ni set na maanaam faw bu dikkoon ñaari fan te ñetteel ba du ko julleegum day xool mandarga yi génn ndax set lay wane wala déet su fekkee set lay wane mu set sangu commencé julli affaire bi dara génnaatut kon day wane ni kon baax ga daa wàññeeku ndax léeg-léeg boo demee ci fenkukaayu jant ba ak sowu jant ñi dëkkee fenku jant ñi dëkk ak sowu jant seeni jigéen duñ bokk da ngay gis xale yu jigéen yoo xam ne fukki at sax bu ñu ko amee commencé gis baax nga gis xeet boo xam ne dañu ne ba fukki at ak juróom lu tax ndax nit ki li muy lekk li muy naan yooyu di ci def jeexintal jamono bi ñu toll feebar yeeg lekk yeeg yëpp dafa gaaw lool tamit ci soppi gis baax su ko defee yooyu tamit nit ki di ko bàyyi xel soppeeku mën naa am jigéen ji amagul borom kër bu amee borom kër lépp gis baaxam day changé yooyu yëpp ay facteur la yoo xam bu nekk day tax kon nit ki dafa war a teey ndax bu jaamoo yàlla te sete ko def na luñ ko digalul bu fekkente ni set na te julliwut ndax defe ni setekut lam defa gën a nekk musiba kon faw mu def ndànk xool ndax lii ak set la bu dee set la alhamdulilah bu fekkee dafa jàpp ni set na sangu ba na commencé am lu de commencé dellu si day xam ni kon daa juum mu commencé di compte te buy compte la mu njëkkoon a am da ko cay boole wallahu a'lam
am na koy laaj ci
kuy julli ci kuy julli
laaj soo ko mënee bantoo kuy julli ndax di jàng jóge ci kaw jëm si ci suuf ak di jóge ci suuf jëm si ci kaw déedéet bu dee julli moom yéen ci yàlla dafa wax ne ci kaw ngay jóge jëm si ci suuf maanaam ci gàttal su ma taree rakk bu njëkk wa samaay wa taariq rakkab ñaareel mooy diggante wa samaay wa taariq jëm suuf laa waroon a tari kon maanaam saar ba ma tari ginnaaw boobu rek na jëm suuf waaye waruma wa wa samaay wa taariq ci rakk bu njëkk bi ñaar rakk ma dem ginnaawaati way way wala amayata déedéet su dee ci buntu jàng la su dee ci buntu julli la amaa bu dee buntu jàng nag moom la gën mooy nit ki tàmbalee ci suuf jëm ci kaw donte am na ñu wax lu wuuteeg loolu waaye loolu mooy lu gën beneen bi ci des mooy su fekkee nit ki gis na ni ca kaw a ko gën a julli mu tàmbalee ca waaye nun en tant que jàngalekat lu ñu digal nit ki tàmbalee ca kaw ndax ku ne xam na ni yéeg moom ci suuf neex di tàmbalee tey saari suuf moo gën a gàtt moo gën a gàtt ay aaya moo gën a neex a jàpp te loolu bu dee ku bëgg a jàng bëgg wattu bëgg a mokkal foofu la gën a yomb wallahu a'lam
pareegul pareegul xaar leen tuuti
ñetti façon xam ne boo ko mënee leeral parce que am na ñu mu leeral ci ñoom boo mënee def démonstration bi gis ko xabdu ci biir julli yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam da koo jàngale te ñun yonent yi dañoo noo digal suñuy julli nañu xabdu xabdu mooy nit ki jël loxob ndeyjooram teg ko ci loxob càmmoñam waaye day ngëb wadu nag mooy nga jël loxo bi rek teg ko ci kaw ñaar yëpp benn bu ci nekk am na waaye am na ay façon yu ko yonent bi defee sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci des mooy loxo ndeyjoor mooy tege ci kaw loxo càmmoñ bi maanaam nii ma def taxaw di julli su fekkee nit ki dafa taxaw mu yëkkati ay loxo mu kàbbaar nii lay kàbbaaree tenq yi mooy féete kanam ñu bari dañuy allahu akbar déedéet waaye yii mooy féete kanam def nii bu la neexee mu tolloog mbagg yi bu la neexee mu yéeg ba tolloog nopp yi boo ci def baax la nit ki su wa kàbbaaree ba noppi am na ñuy def nii bii baaxul
teg ko si conc yi déedéet baaxul am na ñuy def nii it nag même boo tegul coon ci bii it baaxul xabdu mooy ngëb li ñuy tuddee ngëb ngëb nag nii ngay def bii mooy tege bii ñëw ngëb ci kawam booy ngëb lii ngay ngëb poignée bi ngay ngëb nii ngay dañuy ngëb kon bii benn la su se ne waggo ñu bari nañu defee ni saa boo tegee rek teg bee tudd xabdu déedéet xabdu saa buñ ko waxee mooy ba nga ngëb ndax xabdu mooy ngëb kon bii sax na sax na tamit nii nga jël lii teg ko fii ci digg bi boo nee nii teg nii nga xam ne léegi loxo bi lii mi ngi tege ci digg bii cati baaraam yi ñëw fii yéen ñooñu da ngeen a waroon a gëstu xool bu ko defee nii lay def maanaam nit ki nii lay def léegi bii mooy tege ci kawam mu def nii. kon benn bi sax na bii nu mu tudd ah waddoo waddoo la teg waddoo mooy lan ci wolof teg xalaas jeex na saa boo ko defee neneen nu la neex nag yaa def la la neex maanaam bu fekkee nit ki dafa ñëw mu def nii mbaa mu def nii da ngay foog ne maanaam nit ki ma ngi jaamu yàlla fekk li muy def du ci am benn tiyaaba yéen saa salam lii la doon def fii lay jël teg ko ci kaw fii gis nga mu wàcc gis nga nii su fekkee nii nag nu mu tudd xabdu xabdu mooy ngëb nit ki def nii muy waddoo mbaa mu def nii muy xabdu lii laa xam ci lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaw ma lii xaw ma lii ak bu fekkee ni ko dafa def càmmoñ tamit yonent bi dindi ko sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam nu baral tuuti nu waxtu wi jeex na daal mën nañ laaj mën nañ laaj gañaw su fekkee am na leen lu ci mën nañ ko pare keneen ku mel nan nampal ci boppam l'islam daa bëgg ñu organiser ko ndax nampal day araamal li askan di araamal tey ji diw mii ki mbokkal deret mënu koo takk parce que dañoo bokk waaye nampale gi ñu bokk a tax maanaam yow mii ne ci daara ji keneen ne ci daara ji yore doom yaay ju faatu wala ñàkkum soow wala daa tukki ngant mën a daal ba nga nampal islam dafay wax ni saa boo nampalee ñetti yoon te nampal gu ne suur na ca kooka léegi moog yow bokku askan mënatoo koo takk lay araam ci yow bu doon diggante góor la ak jigéen dañ naan ñoom buñ màggee duñ mën a takkal ndax araamante am na ci seen diggante Uqba ibn Amir dafa takkoon soxna benn meer ñëw daal di koy fekk ah Uqba kii kan la mu ne ko kii sama soxna la mu ne ko yow xanaa xamoy nampal naa la nampal kii mu ne ko ah ba ci la mu ne ko yonent bi nee na nampal day tax mu araam Uqba ibn Amir daal di war gilee moom dem ba ci yonent bi laaj ko yonent bi ne ko meer bi kat wax na dëgg yonent bi tas sëy ba sallallahu alayhi wa sallam léegi sëy boobu doom yi ci judd nu muy doon déedéet sëy bi mu wérul woon ñu takk ko ba am ay doom yu judd ci doomi njaaram lañ wala ah mosoon naa ko fee leeral de seen xel yi xanaa da ngeen di xeba naqata doomi subaxa lañ koy tuddee subaxa am lënt moo amoon léegi doom yooyu kenn du leen jox àtte doomu njaalo déedéet parce que dara newu ci am lënt amoon àtte bi xamuñu ko woon ba ñoom ñu bokk sëy kon nag doom yooyu doom yi lënt lañ ñu di tuddee wallahu alam su fekkee nag am maa jëmi jox ko benn mu nàmp benn yoon wala boog jox ko wenn ngir nax ko yooyu nga xamante ne matul ñett yoon suuralut kenn loola moom bokk ci yi ñuy wax wallahu alam aywa naaw parfois de ba gën ci góor mooy boo xamante ni xet baay génn te du am melokaan bu dee bu jigéen la gën mooy loo xam ni xet bu du génn te mën naa am melokaan jigéen dañ koy tere parfois wu génn man foofu la may wax mooy bañ a génn gën tegtaloo ci xadis ab abi hurayra jigéen ñi yéen laay waxal yi seen borom kër wàcc ngeen taal cuuraay ku sa loxo jot a laal cuuraay mu ne bul julli si jàkka ja kon gis nga ku sa loxo ji jot bul xam nga ku naan la bul julli si jàkka ja moom bu ñu la yónnee ci bitig ba taxul di wax bu doon abu hurayra lañ laaj laaj moom xam naa danaan bu fa jaar moom kon nit ki moytu di ko yu mel noonu mu gën beneen bi ci des nag mooy nit ki mën naa parfum ci biir néegam parfum bi des ci moom mu xëy génn mu romb góor mu xeeñ ko yonent yàlla mais bépp jigéen bu parfum romb góor mu xeeñtu ko joxañ leen ko njaalokat baago léegi nag bu ñu ne la yow yaa njaalo tey nga bëgg a tukkal adduna bi te jëf jooju yaa ngi koy xeeb moo tax jaayum cuuraay ak yooyu ci jigéen moom tiit naa ko lool waxuma araam na de waxuma mënta nekk waaye tiit naa ko lool jaayum yooyu ci parfum cuuraay ak nangam ci jigéen bu moytuwul mën naa tàbbi ca bàkkaar te du ko yëg wallahu alam
waaw waaleykum salaam waaw
da wax sami allah liman hamida nga booy leen ñoom ñaar ñoo war a ànd waaw nit ki daa war a wax sami allah liman hamida ba pare wax rabbana walaka alhamdu hamdan kasiran tayiban baraka fi ñaan boobu muy wax sami allah liman hamida wu lenn la rabbana walaka alhamdu leneen la du caage ni boo wax remplacé na ba ca des déedéet ñaar yëpp la ñuy wax imam da koy wax kii topp ci ginnaaw day wax ñaar yëpp maanaam même bu imam ne sami allahu liman hamida yow boo siggee da ngay wax sami allahu liman hamida ba pare comme moom nga wax rabbana walaka alhamdu moom it da koy wax comme yow wallahu alam
léegi am na question boo xam ne comme jigéen bi nga xam ne da doon julli mu boot doomam wala mu fob ko léegi doom ji saw ko moo xam liir moo xam liir bu ndaw la wala koo xam ne xaw na dëgër tuuti yooyu yan mooy àtte bi ndax day dagg julli bi wala nu muy def wala ngay julli ci ci ci sajaada am ko ci saw bu dee ndox da koo jege moom day daal di wis mu jeex bu dee gone goo xam ne lekkagul lekkagul yé sawam dañ koy wis bu dee gone goo xam tàmbali naa lekk sawam dañ koy raxas su fekkee ndox da koo jege ma mën na kaa yóotu rek defar ko mu jeex bu nekkoon sa gannaaw sax mën ngaa yóotu waaye bu fekkee jegew la nag ah julli ko saw mu dagg su fekkee saw bi laal na ko laa wax bu dee daal laal te loo xam ne mën nga kaa summi teg fee bu doon nit daa yoroon ñaari jilbaab mu laal benn bi mën naa summi benn bi teg fële kon nag julli su dee daa saw ci sijaada bu fekkee mën ngaa wàcc sijaada ba wala leneen wala boog mu saw ca waaye fa ngay sujjóot ak fa ngay jullee ak fam saw bokkul loolu jotewul dara mën ngaa continuer julli wallahu fu waxtu bi toll aywa naam mu gaaw
nit ki tam ndax am na ñaan boo xamante ne war na kaa ñaan pour gën a am kóolute ci àjjana ak safara pour gën kaa gëm ak ragal ko ñoom ak tamit salaat bi daal dese naa leer de maanaam
ndax nit mën naa ñàkk ñaan am na pour maanaam gën a am yaqin ci gëm àjjana ak safara waaw
maanaam di ñaan ñaan goo xam ne bu yàlla bu ko yàlla nangoo mooy da tax nga gën a am yaqiin ci àjjana waaw am
fii ma toog di teewlu ma ab ñaan boo xam dama naan bii day man nees na koo def ngir loola waaye li ma ci mën a xam mooy ab jullit moom dëkk di ñaan yàlla subhanahu wa taala ak di ko jaamu bokk na ci yii gën a tax ak jaamu yàllam di dolleeku aw yiwam tamit di gën a dolleeku su fekkente ni ab jëmmi ñaan nag ala kulli xaal mën naa am mu am sax waaye teewlu ma fenn rot yi ñaan ci sunu daal bari na lool waaye li gën a tax li gën a am solo nit ki di ko ñaan mooy di ñaan yàlla subhanahu wa taala ak sax di ñaan yàlla ak sax loolu saa bu amee rek ak ngi ñaan yàlla dolli la ngëm xam-xam nit ki daa war a ñaan yàlla dolli ko ko ngëm nit ki daa war a ñaan yàlla dolli ko ko sax ci njub kom ihdina siratal mustaqim yi ay sabab la yoo xam ne benn boo ci wax ne day gën a tax nga gën a sax gën a góorgóorlu ci ay jaamu yàlla. loolu bàkkaar bu mag la ci bàkkaar parce que taxarif Alquran la ci sabote Alquran la bokk loolu nit ki bu koy def te moo ko tey loolu sax mën na koo génn ci l'islam loolu njabarkat lañ koy def mooy comme commencé fatiha te wala dallina amin di ñëw ci alhamdulilah loolu loolu jurit du ko def ci doyadal Alquran te doyadal Alquran moo fu mu yegg da lay génn sax ci l'islam nit ki na jàngee Alquran comme ni ko yàlla wàccee ci Jibril Jibril jox ko Muhammad Muhammad jàngal ko sallallahu alayhi wa sallam. eh yëfi jàmbur moom ak nu mu mënti mel yëfi jàmbur moom yi nga xamante ni nag ay kudd ak ay yu ñàkk fay di nga xam bu borom dikkoon sax mën naa koo fay ah su boobaa bu ko xale gi yaa bu bu la borom baalee baax na bu la baalul yaa ko war a fay waaye moom yëfi jàmbur moom foo mën a dem yëfi jàmbur lay tudd moom bañ koo jëfandikoo gardeel ko ko moo gën su fekkee dem nga ba utiliser ko it moo la nga for ñoo bokk yam bu borom fee ñoom tey yaa ko war a fay xanaa ma baal la wallahu a'lam boobaay bu mujj kon aca kuy wax waaw
wala bu dee bu dee tax mu comme ni ngeen leen bu dee jot a lekk ceeb dañ koy raxas bu dee yoo xam ne jotaguñ lekk waaw loolu loolu laa wax sànq waaw sawu góor dañ koy wis sawu jigéen la ñuy raxas sawu góor ñu wis ko wa kadalika su fekk loolu ci kaw su fekkente ni commencé gunoo lekk liir bu tàmbalee gut a lekk moom lañ naan bu góor ba dañ koy wis bu jigéen ba dañ koy raxas waaye bu ñu xawasee commencé lekk ñoom ñaar ñëpp ci bokk yam dañuy raxas seen saw wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi
liñ am si temps doyul la ah